Mouhamed Habib Aidara maa ngi maa ngi lay nuyu seen auditeurs yi. Mouhamed nga nekk secretaire général bu syndicat unique euh, des travailleurs de l'électricité du Sutelec ci tàng yële Pape Mademba Bitèye DG wu euh, Senelec daal di génn annoncé trente neuf euh, milliards de de bénéfices parce que chiffre yooyu nga xamante ni avancé na ko est-ce que lu dëggu la waaw wala déet malgré difficulté yi nga xamante ni entreprise bi mi ngi koy dund. dund. waaw chiffre yooyu de mën nañu wax ne dëgg la ndax bu Senelec déclaré bénéfice am lu ñuy wax ay commissaire au compte ñooy ñooy ñëw saytu loolu est-ce que dëgg la wala du dëgg te commissaire au compte yooyu bokkuñu Senelec ay la ñooñu bi ñu ñëwee aussi firnde nañ ne effectivement trente neuf milliards yooyu am nañ ko comme bénéfice donc loolu dama koy dëggal. donc du du déclaration euh, politique ñu bari niñ ko daal di foogee. non non non non non non amoon nañ bénéfice trente neuf milliards parce que depuis deux mille cinq ba léegi chaque année Senelec muy def ay bénéfice jóge ci benn milliard dem ci cinq jóge juróom dem juróom-ñaar jóge juróom-ñaar dem fukk ak benn jóge jóge fukk dem fukk juróom-ñaar après dem ñaar fukk ak juróom milliards ba ni ñu yegsee tey ci trente neuf milliards mooy euh, trente neuf milliards je sais plus comment on dit en en Mm-hmm. mais daal yegg nañ ci trente neuf milliards donc li prés li li directeur général wax dëgg la commissaire au compte yi firnde nañ ko. te dafa nekk dafa concerné année premier janvier ba 31 décembre 2021 waaw bénéfice boobu moom exercice bi passé loon c'était pour 2021 donc budget boobu année année budgétaire boobu clôturé nañ ko ba tëj ko ba ubbiwaat beneen année maintenant jafe-jafe yi am nag te année bii lañ ko commencé am voilà ñu mën na am jeexital bi li njëlbeen gi mu ngi commencé ci yeneen année yi ndax boo jëlee ay engagement nga signé ay contrat wala nga leb xaalis nga ne ki nga leb man de du ma la fay deux mille vingt du ma la fay deux mille vingt et un deux mille vingt deux laa lay commencé fay mm-hmm. donc effectivement deux mille vingt deux il faudrait que ñu sant yëpp jafe-jafe yooyu Euh, voilà ñu gis ni fan yi rek euh, DG bu AIBD aéroport international euh, Blaise Diagne Doudou Ka dafa génn ne AIBD fi ñu toll nii Sénégal moo ko daal di moom parce que bor bi ñu waroon fay d'ici quelques années épongé nañ ko totalement bi mu defee déclaration bi nag ñu gis ni Sénélec dafa génn daal di évoquer dette boo xam ni AIBD Limac moo ko ko daal di yoreel ci ay facture d'électricité est-ce que mën nga ñu leeral mbir mbir moomu ñu daal di comprendre. waaw moom de li wax am na lu ci loo xam ne xel mën na ko nangu wax que AIBD mooy aéroport international Blaise Diagne dafa am abonnement biir Sénélec waaye mu am keneen koo xam ne beneen kuréel boo xam ne Sénégal sax moomu ko ay turc ñoo ko moom ñoom ñu ngi tudd Limak AIBD Touma ñu wax di leen wax laab ñoom dafa am liggéey bu ñuy def waaye biir AIBD la ñuy liggéeyee ñoom tamit dañoo am contrat ak Sénélec comme ni AIBD amee contrat ak Sénélec donc AIBD day jot facture am li mat jot facture am AIBD nag ameelu lu ñu lu tolloog loolu ñu wax ne moom la ñu ameel ñu ngi fay ñoom seeni facture waaye li mat bi nga xam ne entreprise turque la nekk ci biir AIBD di sa liggéey waaye am tëggal boppam maanaam di doxal boppam autonomie ñoom ñoo ñu ameel cinq milliards yu teg trois millions loolu moom ñoom mënuñ ko wéy waaye du AIBD ci boppam waaye beneen structure boo xam ne ci biir AIBD la nekk te AIBD net ci actionnaire ñooñu ñoom ñooñu amee cinq milliards loolu moom maa ngi koy dëggal bor boobu ba léegi nii fayaguñu ko. te cinq milliards yooyu euh, euh, euh, kuréel gi di di Limac ban explication la joxe ne moo tax mënul fay cinq milliards yi Senelec. bon man mbubb bi ma sol pour wax ak yow mbubb syndicaliste la donc waa direction commerciale ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo am ak moom ay relation commercial moo la mën a wax fan lañ toll ci négociation bi ak lan moo tax fayuñu waaye ñun beneen mbubu beneen casquette la ñuy wax pour alerter population yi ñu xam li nga xam ne mooy yoot Senelec et liy yoot Senelec aussi bu yeggee ci li ñuy wax liy raam ci nag ba lay jëm donc ci population yi ñoo koy nar a yëg bu courant bi coupé nit ñi dinañ ko yëg moo loo tax ñuy alerter waaye relation commerciale yi sax diggante Senelec ak Limac loolu moom direction commerciale ñoo yen ko mën a leeralal ñoo gis ni fan yi wala tey rek euh, journaux yi ñu ngi génn euh, ne Senelec mu ngi menacé ab black out li ko waral euh, moom mooy dafa am ñu ko ameel xaalis fayuñ ko ay facture d'électricité yu cher cher yoo xam ne fayuñ ko ko ba moom tamit mënul fay privé yi mu ameel xaalis est-ce que Habib Aïdara mën nga ñu leeral ñan ñoo ameel Senelec xaalis ba ñu xayma ko ci mille milliards ba Senelec di menacer ab black out waaw peut-être que mën nañu wax ne bor bi yeggul ci mille milliards buñ koy xam xayma mu ngi toll ci téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ak ñaar cent trente-sept milliards environ maintenant ñi ñu ko ameel mooy nguuru Sénégal ndax gouvernement bi ak ay ministère am wala ay gouvernance am ay préfecture am ay sous-préfecture am ay démembrement wu état bi maanaam ay gendarmerie ay police yu demee ni ki sapeur pompier ñooñu ni ñuy lakk dañoo tegale ay facture ba mu toll ci fukki milliards ak juróom-ñaar donc nguuru Sénégal moom amel na loolu Sénélec am na tam ñeneen ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy mairie yi ak te ku ne mairie rek xam ne mairie moom moo war a fay làmp mbedd yi muy éclairage public ñoom ak seen ay bâtiment amel nañ Sénélec fukki milliards ak juróom-benn mooy seize milliards te seize milliards yooyu éclairage public bi rek mooy làmp mbedd toll na ci neuf milliards juróom-ñeenti milliards. boo jógee ci loolu am na ñoo xam ne ñoom la eh, nguuru Sénégal jox pour ñuy jaay courant dëkku àll bi maanaam village ñu leen di wax ay concessionnaire concessionnaire yooyu boo demee ci ñoom ñoom amel nañu Senelec fukki milliards ak benn nga jóge ci ñooñ dem ci entreprise parapublique yi maanaam mooy lu mu demee ni ay poste ah yu demee noonu ak ay port autonome de Dakar ñooñu ameel nañ Senelec lu tolloog ñaari milliards ak juróomi juróomi téeméeri million nga jóge ci loolu dem ci ñi ñuy wax EPAF EPAF mooy établissement public à autonomie financière ñu mën cee lim assemblée nationale mën cee lim université yi mën cee lim hôpitaux yi maanaam hôpitalu principal hôpital ndaamaatu hôpital bi yëpp hôpitaux yi yooyu yëpp boo ko boolee ñooñu amel nañ ñu fukki milliards ak gan ensuite am na industriel yi parce que ñooñu moom bëgguma sax tudd seen tur mais industriel yi tamit amee nañ ñu fukki milliards ak ñaar ak juróom-ñaar téeméer téeméeri millions les représentations diplomatiques tamit mooy ambassade yi nekk biir Sénégal amel nañu milliards bu teg cent millions les sociétés de service ñu demee ni ki ay ONAS ay Sen'Eau euh, ñooñu ameel nañu Senelec fukki milliards ak juróom-ñaar bien que ñooñu tamit Senelec léegi-léegi daf leen di ameel ndax ñun suñu factures yi am nañu ay facture ndox am nañu ay facture téléphone ñuy fay ce qui veut dire que tey jii daal boo xaymaa lépp lépp li nga xam ne alalu Senelec bu la buy war a fay Senelec te mu nekk ci àll bi loolu nga boole ko ak kër yi nga xam ne ñu ngi consommer léeg-léeg bien que seen consommation réyul trop ak bërëbu liggéeyukaay yu mel ni boulangerie yi wala salon de coiffure salon de coiffure couture yi loolu lépp daal mu ngi toll ci téeméeri milliards ak juróom ak juróom ak mooy cent trente sept milliards exactement cent trente six milliards neuf cent vingt cinq millions neuf cent quatre vingt quatre mille zéro dix neuf francs la est-ce que lu ne mel nag boo koy xool dafa xaw ëpp ñun li nga xam ne loolu lañ amal ñeneen ñi est-ce que loolu euh, dette yi nga lim yëpp du contradictoire ay dara ak euh, bénéfice yi ngeen avancé ne Senelec daf ko am caatum 2021 bi non non non du contradictoire parce que bénéfice bi bu koy natt dañuy xool fii at mi mooy maanaam le premier janvier ba fi ak at mi di jeexee mooy le 31 décembre bu loolu dañoo xool lépp li ñu waroon a génne ci charge ñu génne ko ñu xool lépp li nga xam ne war nañ ko jël mu ñu encaissé ko ñu def différence bi booba ñu ne effectivement le résultat il est bénéficiaire maintenant bu année boobu jeexee dañuy tëj année boobu ñu ubbi beneen année bu bees mooy janvier deux mille vingt et un diggante janvier deux mille vingt et un ak tey jii le dix neuf le dix huit août bii ñu nekk donc Senelec bu xoolee li nga xam ne jot na dugg ci xaalisam ci gafakaam ak li nga xam ne génnee na ko dafa am déficit maintenant loolu nag am na ci loo xam ne ren kese la mais am na yeneen yoo xam ne comme ni ma ko waxee sànq ci kàmm ci sama jël benn wax mooy ay engagement yu Senelec jëloon mën naa leb xaalis ne la yow kat lebal ma waaye damaa bëgg nga may ma ma toog ñaari at yoo xam ne du ma la fay ñetteeli at daalaa lay commencé fay donc ñetteeli at boobu bu commencé fay bor la boo xam ne contracté woon nañ ko ci ñaari at wala ñetti at ci gannaaw mais ñu ngi koy doog a commencé fay mais quand même contradictoire ku ñu ne daaw am nañ bénéfice ren am nañ déficit parce que exercice bu nekk ak euh, kiyam ak appam daal ak intervalle buñ koy buñ koy appale voilà à un moment donné euh, Habib Aïdara yaa ngi wax ni boo moytuwul courant bi dafay daal di yokk lu ni mel nga wax ko si lan nga basé wu ba ne dañuy yokk courant bi bon waxuma ne dañuy yokk courant bi parce que du Sénélec mooy yokk courant bi dafa am benn kurel bu ñuy wax commission de régulation du secteur de l'électricité de l'énergie ñoom ñooy waxtaan ak Sénélec nekk ak nguur gi pour fixer tarifu courant bi mais par contre ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo wax ne courant bi fi mu toll nii dafa cher te dañ ko war a wàññi maintenant pour ñu mën ko wàññi nag il va falloir que mooy am ay action yu yu yu yu yu mag yu ñu def maanaam éclairage public bi nga xam ne mooy lampe mbedd yi nga xam ne ci courant bi la ñu jël seen seen seen leeraay mu ñu amee ñu neuf milliards ñu ko defoon solaire tey gii dina tane mu wàññi charge yi ak aussi yeneen yi nga xamante ni teg nañ ko maanaam lu tel ni accès universel à l'électricité euh, ñu bëgg courant bi yegg ci dëkk gox-goxaat yi ñu ñëpp xam nañ ne boo demee ci dëkk gox-goxaat yi ñu bëri ay làmp kese la ñuy utiliser du ñu am ay climatiseur du ñu am ay frigo yoo xam ne tax ñuy consommer lu bëri ce qui fait yow li ngay investir pour yóbbu ko ci àll bi balaa nga koy jotaat dafay yéex donc yooyu yëpp ay schéma la yoo xam ne war nañ ko xoolaat ensuite biir Senelec aussi ñu xool système de management bi ak politique bi ak naka la ñuy defee la gestion de ressources humaines ba nga xamante ne bii loolu lépp bu ñu ko boolee dinañu permettre ñu optimiser suñu ay moyen maanaam ñu yaxanal li nga xam ne mooy dugg ci kafaga Senelec wàññi li nga xam ne moo tegu ci kaw Senelec pour que vraiment ñu mën a xool naka la ñuy def pour loolu ñuy wàññi ñu mën ko delloo ci ci ci consommateur bi ak ci ki nga xamante ni mooy liggéey ci courant bi di wut lu mu yóbbu ci njabootam. voilà dernière question ñu daal di gis ni gannaaw taw yu métti yi nga xamante ne am na ya une semaine wala deux fii ci ndakaaru ay délestage yu métti dañ ko nemmeeku woon ci quartier yu bëri euh, ci Dakar lan moo doon expliquer euh, délestage yooyu le même bu fekkente ni tane na am na gox-goxaat yoo xam ne ba léegi euh, coupure courant yi mu ngi fay wéy di fa am lan moo koy expliquer Habib Aïdara bon délestage coupure yu yu métti yi amoon ci fan yee si gannaaw ci taw bi moom li ko li ko war rek yomb na ndax courant bi buñ ko toggee ci centrale bi dafa am loo xam ne moo koy indi ba ci biir kër yi loolu la ñuy wax le réseau de transport réseau de transport moom mooy ay fil yu mag yoo xam ne mooy jàllale courant bi mais bu ñëwee ba war a yegg ci kër yi courant boobu dafay bëri doole ba nga xam ne dañ ko war a wàññi loolu la ñuy wax benn poste boo xam ne moom la ñu am aan foofu la courant bu mag bi di jógee bu ñëwee foofu nag après post boobu moo koy wàññi ba pare daal di koy séddale ci biir kër yi poste boobu nag moo amoon ndox mais ndox bi fa duggoon dafa ñëw ba laal fiil yi te ñun ñëpp xam nañ ne courant bu duggee ci ay fiil rek dafay couper courant ba looloo taxoon ñun ñu arrêté poste boobu ndax courant bi ndox mi ni mu duggee woon foofu dafa jéggi woon dayo ci biir loolu rek ñuy jaajëfal liggéeykat yi nga xam ne ñoo takku woon bàyyi seen kër yi ñëw pendant ñetti fan fexe ba nit ñi amaat courant parce que coupure boobu li ko waraloon mënoon na def fukki fan ba fukki fan ak juróom te Sénégal kenn du am courant mais loolu daal moo indi woon délestage yooyu maintenant nag bu dee ne fan am na ay coupure yoo xam ne mu ngi am ci ay gox. Mhm. du délestage pour le moment mais dañu jàpp ne ay panne la. yoo xam ne wala ay travaux yu ñuy def ci réseau bi. voilà mu mais li a xamle rek. mooy Sénélec bu amul xaalis bu mu fayee ay pipi bi moom léegi dina dem ci xuy xamaj goo xamante ni dina jéggi dayo Mouhamed Habib Aidara mais FM mi ngi lay jaajëfal. waa kay merci maa ngi leen di jaajëfal di voilà may fàttali yow yaay secrétaire général bu syndicat unique des travailleurs de l' électricité du Sutelec.